rek moo euh, li ñu ko xamee moo di nit koo xam ne kii nitu valeur la woon euh, nit la koo xam ne kii moom laa wax doom bu jigéen bu dul woon li ñu président ñas yónni ñu ànd ak président Abdou Mbow ak Jimo Soare ak yeneen député ñu teewal ko fii tey bi may Abdou Mbow di woo foo fekk na ma sol sama mbubb ndaxte sama magu yaay bi ma yar di Adja Aminta Diop dëkk rue neuf à bopp Ibader amoon siège u partem trois maisons après mu gaañu ñu koy denc jour boobu Iba Der Thiam am bureau politique la doon kàngamu partem ñëw fa bi ñëwee ba teew dafa jégalu ni leen na keneen continuer bureau politique bi soxna si gaañu ci koñ bi day ba ma ko mësaa romb dina mu nuyu ma nuyu ko kon bu ma ci teewee foog ma dem jébbal ko boromam noonu la ànd ak ñun ba Tiwaawan dëj bi du woon yo enterrement bi du woon yoof Tiwaawan la woon mu ànd ak ñun ba Tiwaawan taxaw ñu taxawu sama tante defal ko jébbal ko borom mu ñaanal ko ñëw ci bi ñibbisiwaat bi ci bopp ci kër gi jaale ñu ñun ñi nga xam ne ñoo ay doomam loolu tax na wax fa dëgg neex yàlla euh, amoon nañ ko boobu jukkal bu ñu ko woon defal au nom de la famille te incha allah bi ñu ne famille bi yëpp bu soobee yàlla ci suba wala gannaaw suba au plus tard nañ def délégation dem fa pour def témoignage boobu ci moom wax fa dëgg neex yàlla yàlla na ko yàlla xëy aljana jërëjëf mais euh, xam-xamu Iba Der Thiam tabaarakallaahu boo ko mës a muy wax tu es séduit daan yeewu suba teel di di koj intervention ci émission bu nu def EGFI par rapport à l'histoire de l'humanité wax fa dëgg neex yàlla Euh, naan Iba Der am amoon na xam-xam kooku defe naa da mooy li ñëpp xam kooku dañ ciy jàll rek wax ci humanisme wax ci humanité wax ci urbanité mu nekkoon nit koo xam ne kii c'est un intellectuel de dimension exceptionnelle jërëjëf. donc c'est très triste pour nous aujourd'hui mais sachez qu'on est tous prêts à reprendre le flambeau et à continuer le combat qu'il a eu à initier. Voilà. En Afrique, on a l'habitude de dire quand un, c'est une bibliothèque qui est Il, n'était pas suffisamment vieux. Donc vraiment, c'est prématuré pour nous. Oui, mais, mais euh, euh après... Euh, non, il ne brûle pas, il ne pas pas brûler. Sa bibliothèque ne va pas brûler, on va, la reprendre. Ne vous inquiétez pas. Vous allez reprendre le plan. Absolument, absolument. maa ngi tudd professeur Bouba Diop université de Dakar laa doon jàngale professeur Iba Der Thiam man ak moom ak ñeneen ñoo sumb liggéey bi ñuy wax taarixu Sénégal euh, man mii euh, ci pàcc bi gën a yàgg ci la euh, liggéey Sénégal sunu maam yi fu ñu jóge ba ñëw fii ñu nekk professeur moo ñu tette ñun ñëpp ci liggéey bi bon liggéey bi am na lu ci jot a sotti gis ngeen ko génne nañu juróomi téere mu des yeneen téere waaye li ñu mën a wax doomu Sénégal mooy eh, am nañu yaakaar ndaxte bi ñu mujjee waxtaan ak moom xelam dal na parce nee nañu ko yaramam dafa sutante waaye ñi nga xam ni ñoo fi nekk incha allah eh, daañu àggale liggéey bi bon loolu rek lañu mën a wax eh, di ko ñaanal yàlla xare ji ko àjjana di wax mbokk yi itam ndax xale yu roy ci moom ndaxte ñun bi ñu koy xam booba dafa bëre booba ñoo étudiant la ñu jàpp ko tëj ko kaso ci la préparé licence am jóge fa euh, nekk ministre bi mu nekkee ministre man boobu man mi maa jiite syndicat professeur université yi ñu jóge fa jàppante bu baax bind li ñuy bind bon nag euh, metti na waaye na euh, doomu Sénégal yi am yaakaar ni liggéey boobu dana sotti te réewu Afrique yu bari dañ si bëgg roy ndax professeur dafa bind ci histoire Sénégal bind ci histoire Afrique bind ci histoire doomu aadama lépp loolu yëpp bon nag euh, sénégalais yi war nañ ko xam xam liggéey xale yi xam bu baax li mu liggéey am na lu ñu ci yokk ndaxte liggéey histoire moom ku ci nekk da nga am loo ci yokk rek euh, liggéey bi du jeex mukk waaw jubbanti defaraat yokkaat euh, yenn saa yi mu am werante waaye li ngay wax rek na nga am ci loo ko sukkandiku wax ko ci. professeur tey jii nii euh, euh, tey jii nii euh, professeur Iba Der mu génnee àddina. Hmm. lan moo la njëkk marqué ci li nga xamante ne voilà ci lan nga fàttali li nga xamante ne jëf leen dem ensemble à part écriture réécriture ci parcours am. li may njëkk fàttaliku mooy lu mu gëm te fexe ba mu sotti def ko loolu moom moo ko gën a mandargaal maanaam dara. nga def nag ba li nga gëm nga fexe ba mu àgg sotti nit ñi gis ko ndaxte loolu moom du ko doole ju amoon maanaa la bi muy wax nii boobu dañuy bind histoire Sénégal ñu bari gëmuñu woon loolu mën na sotti mu fexe na ba ñu def ko te ku laa biir la woon aussi euh, nit war a yëwan euh, bokk loolu daal mooy li nga xam ni moo ko gën a euh, ràññee ci jàngalekat yi ak gëstukat yi loolu loolu loolu mooy li li nga xam ne moom laa gën a jàpp tey jii nii gën na àddina yéen le monde universitaire ngeen di réclamer ci état du Sénégal. waaw ah, loolu moom xam nga euh, lu ja lu ja lu ñuy laaj mooy ah, xam-xam ñu gën ko daal ci réew te li ñuy wax ñu jëfe ko euh, professeur euh, tey ji bu ñu nee réew bala muy dem kanam nit ñi dañoo war a yeewu jàng. ak mënal seen bopp te nag booy wax rek ngay jëfee ko euh, yàgg naa waxtaan ak moom ci mbirum euh, livant alphabétisation ñu jàng suñu làkk yi yooyu yëpp dañ koy wax waaye des na lu bare donc li ñuy laaj mooy nañu bëgg suñu bopp euh, bañ a xeeb kenn waaye faydaal suñu bopp tey jii wolof muy pulaar di séeréer ñoo ngi koy jàngal nit ñi waaye boo doxee ci mbedd yi boo gis ñi ko jàng jaral leen dara ndaxte indil leen njariñ te gisuñu ko loolu la war a góorgóorlu fexe itam ba nit ñi euh, am liggéey xale yi tedd euh, réew mi li ñu yàlla may fii bari na de boo amee ay ñeenti dex am ay géej yu toll nii réew nit waru fi sonn yooyu daal la yaakaar ni daal mën nañ ko euh, yaakaar nii Eh, professeur gëmoon na loolu de te itam war nañ ci góorgóorlu. sama dernière question en tant que universitaire euh, gis nañu euh, aéroport Blaise Diagne. waaw gis nañu euh, aéroport Léopold gis nañu université Cheikh Anta ak université Assane Seck loolu leen di xaarandi ci benn mandargal bi ñu mën a tuddee Iba Der Thiam. waaw kooku de man de si sama xalaat am na lu nga xam ni Sénégal amu ko te war na ko am. mooy kàggu bu mag mag li ñuy wax bibliothèque. Sénégal li fi mos a am ci téere ak téere yi nekk ci adduna bi ñu wax ci Sénégal mu am loolu Sénégal amagul ba Senghor amee ba léegi wax ji nag bari na waaye loolu réew boo ko amul amoo dara Amérique boo nee cëpp librairie du Congrès lañ lay yóbbu France boo nee cëpp ñu yóbbu la bibliothèque nationale Sénégal góor góorgóorlu am bibliothèque téere yi nekk kër Ibader ak yeneen téere yi nit ku ko soxla ñëw gis ko fa bu boobaa beneen Sénégal la ñuy gis te li ñuy jàngal nit ñi itam fexe ba nit ñi. li ñuy jàng mu amal leen njariñ boo ñëwee ndakaaru gis ndakaaru ñu tuddee ko ndakaaru nga xam lu tax dëkk raw la tudd xale yi ko xam barewul bon nit ñi dañu war a dellu si waat nekk nit loolu la professeur doon jéem a def waaye des na de waaw boo demee Thiès nga xam lu tax cees ñu tuddee ko Thiès ñanaa ko xam lu tax ñu tuddee ko yooyu mooy tax nit ñi nekkaat nit am fayda kenn bañ leen yàpp waaw loolu daal la doon woote te loolu la ñu war a góorgóorlu waaw jël leen jëf place benn question rek waaw xam nañu professeur intellectuel bi xam nañu tamit Iba euh, Der Thiam intellectuel bi moo nekkoon professeur Iba Der Thiam ci wàllum social euh, bi euh, syndicaliste politicien social bi itam amoon na loolu yëpp Iba Der xamoon xam ni dimension bu ngay wax bu ci nekk am na ci social bi Iba Der boo ko gisee këram dafa ubbeeku ku nekk lay bëgg dimbale bu ko mëneeg bu ko mënul yëpp kooku social bi la sur le plan syndical syndicat yi bind na ci lu bare xamal na ci lu bare grève yi jëkk am fii liggéeykat yi muy cheminots di enseignants yi liggéey na ci euh, sur le plan politique nga itam euh, bëri na nekk na député yooyu yëpp euh, tey jii bi yëf yi xewee waxtaan ne ci ak doyen Amadou Makhtar Mbow am na kaddu bi mu yónni doyen Amadou Ndeer Ndaw Euh, ñi nga xam ne ñoo conseil de la jeunesse booba dans les années cinquante euh, yooyu yëpp nit ñi war nañ ko xam Iba Der yooyu yëpp liggéey na ci euh, royukaay la woon xale yi roy ci moom àgg na liggéey bi loolu rek moo am maanaam. fàttali ñu ak titre bi. man maa ngi tudd professeur Bouba Diop université Dakar jàngale naa fa faculté de lettres maa jiite woon syndicat bi ñu wax SAES e maa jëkkoon nekk premier secrétaire général maa nekkoon président fédération de l' éducation de la recherche. maa jiite woon aussi CONGAT le conseil des ONG du Sénégal donc yooyu yëpp ay mbaxana la yu nga xam ni euh, amoon naa ko ci ci réew mi waaw jërëjëf